décidé du yow. ci li la concerné jàpp nga ne dañoo supprimer turam bi. non man loolu concerné wu ma parce que man aw ma sañ-sañ bi su Omar Talla dem di fa dem su ma demoon ba egg gis ne dindi nañ ko. Uh-huh. dinaa woo un journaliste ma jox ko information mu traité ko parce que moom lañ sañ. mais waxoo ne après da ngay plainte. parce que dañu supprimer tur Ameth Ndoye ci base de données bi. déggoo ma loolu kan ma ko wax encore. dégguma la yow nga wax nga ko wala waxoo ko. de dama ne du ma la wax wii duma la wax non. man ban porte affaire Macky Sall yooyu mooy lan xam man normalement. Ah, parce que da ngay tay tay non man damay laaj. da ngay tay tay damay laaj pour non non xam nga laaj loo xam jarul laaj yow yaa ngi ci porte plainte boobu ba léegi ndax. le fait que dañu supprimer non man wax ni man tooñu ma. mais yow yaa annoncé bi ci présidium bi. man la wala Yirim. <laughs> ah du yow. kan la ci man wala Yirim bu dee man moom maa tey pour yombal la ko. waa léegi yow la wala du yow. ma ne bu dee man la maa tey. ma ne yow la wala du yow waxuma la bu dee man la maa tey. ndax yow la wala du yow. non bu dee man la man maa tey. waa li wa d' accord loolu dégg naa. ma ne yow yaa ko man léegi xam nga tey man bu ma nee man dina dinaa porter plainte c' est à dire hmm. que man ban prérogative la am di porter plainte problème mu jàmbur. Nguer dégg naa la nga ne dinañ porter plainte de parce que dañoo dem supprimer turu Ameth Ndoye ci base de données bi. sa digganteeg yàlla. seen wëral ma vidéo Nguer bi muy jël parole ci ci ci ci point de presse boobu. Ah. après ñu xoolaat ko ñu ñu ñu avancé. alors Nguer euh, ñu gis euh, ci noonu la ñuy duggee ci li nga xamante ne moom mooy seen mouvement boobu ngeen doon lancé C221 mais depuis boobu ba léegi gisuñ ngeen def benn activité lan la effet d' annonce la woon wala yéen a ngi ci liggéey bi ba léegi. non ñu ngi ci hmm. lan moo tax a jóg C221. mouvement citoyen la. waaw buy. mouvement citoyen la est-ce que est-ce xam nga. xam nga lan moo gën a compliqué tan te tang tang tang ba nga ma ci yóbbu. mooy mooy nit nekk ak nit mu am problème. Mm-hmm. maanaam nga bëgg nit ki wax lu ko chargé. xam nga loolu du ma ko def. est-ce que ne da ngeen a def erreur boobu. ba pare ngeen bëgg a laa nga bëgg nii. li nga bëgg nii ci man. doo man damay laaj rek ngay toog xoolal xaaral ma la dama damay teel a dama lay li nga bëgg nii doo ko am gis nga bu doon sama problème la man ngeer man xam nga man lu ma def maa tey. mais problème mu jàmbur nit ki ku muy àndal bul bul chercher pour kii mu nekkal jéem koo dugal génnal ci loolu parce que sinon da ngay yàq waxtaan dañ fi toog di débat fii ba suba doo am lu la neex pare nañ ci loolu voilà tëj nañ ko nguub bi beneen sàppay tëj seen bàyyil vidéo bu ko seet léegi non bi taxawal nañ ko mouvement citoyen la hmm. ay journaliste ngi ci biir bépp homme d'affaires boo xalaat mu ngi ci biir mouvement bi hmm. d'ailleurs plateforme bi léegi di nga ko gis ci réseau yi ku bëgg a nga dugg fa différent partis politiques nag mhm. bu la neexee sax bokk fu ñoo dugg ci biir amuñu ci problème combat citoyen la te combat bi ñuy njëkk a mëne bokk na ci sca présumé scandale yi am ci ci réew mi te waxuñu ji mhm. d'ailleurs que collectif bi jël na 17 avocats yoo xam ne pare nañ pour traiter tous les dossiers au niveau international pour pour annoncer la ko comme Sénégal ah loolu lu baax la comme premier ministre ma nga woote fee naan scandale amul te moom du ma justice du war a àtte yoon léegi nag plateforme boobu ñu taxawal. Mhm. dafa décider loolu. ba pare dinañ lancé ay pétition lépp lu mouvement citoyen war a def dinañ ko def. pétition contre lan ak contre kan. contre tous les scandales yi fi am en attendant. comme yan. Azer. Mhm. Port. Eurobond bi. rebond bi scandale. bu bu rëy rëy rëy. ban moo si am leer Abdou Abdou Mbaye bind na bind na état du Sénégal ba tey amul réponse laaj na leen marché bi maanaam marché euro boobu kan moo appel d'offre bi anam yow am nga sañ-sañu laaj ko amul appel d'offre kenn gisu ko JP Morgan lu ko ci dugal commission yi ñaata la loolu yëpp moom laajte na ko ba tey kenn tontuwu ko kon mën na jàpp présumé scandale la parce que marché boo amul transparence mhm. présumé scandale la port nee nañ cabinet bi doon audité port bi xaritu Waly Diouf ko moom conflit d'intérêt la wala lan la wala entente directe la Cheikh Tidiane Dièye gis nga problème ONAS bi ni mu ne kur. Hmm. am na ku génn joxoñ baaraam tuuma Cheikh Tidiane Dièye. le ministre. waaw hmm. kon foofu leeral mën a fa am ASER nag moom lu ne fàng la kenn du ko jeex ñëpp ci teg bët. d'ailleurs que ñu ngi ciy tudd Abba sax juróomi milliards loolu bu dul scandale lan la ak ma engrais marché engrais bi. engrais bi nii nii nii ñu génn nii si nawet bi nii. marché boobu appel d'offre bi ba tey kenn mënu koo gis appel d'offre dafa war am appel mais lu tax ñoom seeni marché kenn du gis appel d'offre yi marché gré à gré la wala lan la c'est-à-dire loolu collectif bu jug taxaw ne loolu dama koy xeex mais sénégalais bu ci àndul bëggoo réew mi parce que loolu ñëpp bëgg mu leer quand même Bassirou Diomaye Faye mii sax bëgg na mu leer quand même. Hmm. rek la. donc ngeen ci forme bi. ni ngeen ko xalaatee nekk na lu rafet. te itam réew dafa war a am ñuy xam te dañuy jàttu ni soccet di xool naka la yore réew mi pour transparence mën a am mais bu ñu duggee ci fond bi gis nañ ne nag seen mouvement bi moom anti Pastef la ak anti Sonko d'ailleurs seen déclaration yi ngeen tenir keroog da koy wane lan ngay tontu ñooñu. non anti kon kon Pastef jubuñu. parce que mouvement bi anti ñi jubali. non parce que dañ dañu jàpp ne da ngeen ñëw rek songu waa Pastef. Ousmane mouvement bi a a baax. dama ne a may gët aussi ku ak opposition bi que du mouvement boo xam te da ngeen ko lancé nii mais ci biir politique lal ko. dama ne. Hmm. bi moom pour bëggee dégg-dëgg épargné wul kenn ci gàttal. waaw tënkal la ko épargné wul kenn ñëpp la yemale Hmm. léegi lan ngay tontu si ñu jàpp ne anti Ousmane Sonko ngeen anti Pastef ngeen. waaw parce seen gis-gis la dama koy nangu de ñu jàpp ne rek ngeen pour songu Ousmane. seen seen gis koy nangu de xam nga seen gis-gis la. waaw nangul naa leen. nga leen siy tontu lan. waaw no man seen gis-gis damaa nangu seen gis-gis parce que ñoom amuma réponse bu ma leen di jox. léegi loo si leeral ci loolu. non non foofu ñoom ñoom du ñoom laay leeral bu doon danga ne seen ay sénégalais yu normal ñoo ko gis ñi ngi may wax ne normal non non ah, ah, am na ah, normalul am nañu am ay mouton lañ tamit yow tamit bu dee les gens de Pastef des moutons ñooñu doo tontu seen i wax. respecter gens am na ay nit yoo xamante ne. non mais seen i preuve am na ci loo xam ne jikkoy mala la yow tamit. dañu waxante dëgg mais am na yoo xam ne du jikko jikkoy mala la nit ki mën nga nekk imam mën nga nekk oustaz teewul nga yor jikkoy mala mala du xalaat du réfléchir. mais nit ki bu xasee jàng rek génn na ci génn na ci génn na ci. nit ki mën nga jàng doo am xel xel wërsëg la nag xel wërsëg la. Hmm. yàllaa koy wërsëgale ku ko neex. nit dina jàng ba yooyu kayitam daje koo xam ne jàngul mu ñëw kii ko dribble ko dem yoonam. léegi man su ma la laajoon Abdou ne leen seen mouvement bi est-ce que nekkul ne da ngeen di woote citoyenneté mais boo leen demee ba ci biir politique moo ko lal. non da nga may wax politique bi nan la ko lale. maanaam tey ngeen bëgg a def face ak gouvernement bu fi nekk bëgg ëllëg ñu mën leen a wéelu wóolu dénk leen ay ndombal tànk. man gisuma lool parce que man xam nga man sama combat ay dénkee ndombal tànk bu si ci bokk kon dama doon dem adhéré passif. non pas ñu woole yoo tabb la mais ndombal tànk post électif.

naa ne li politique la. lan nga fa gis. mu ay citoyen yu takku taxaw pour sàmm seen réew laa fa gis. Mhm. man loolu laa fa gis ay citoyen yu jug takku ngir sàmm seen réew ak seen alalu réew parce que Pastef nag tooxi doon yii ñu fi nekkee ñëpp ci teg seen bët de xanaa nga bañ koo wax rek waaye lii ñu fi nekkee ak état de droit nii réew mi kumba am ndey kumba amul ndey mais euh, Mohamed gis nga ko yow tamit caaxaan baaxut. kan mooy président mouvement bi Cheikh Yérim Seck. waaw Cheikh Yérim Seck mooy président moo jiite mouvement bi. yow ban ban taxawaay nga fa am ci biir mouvement bi. Euh, d'ailleurs que amaguma ci benn taxawaay amaguma ci benn post de responsabilité bu ma jël. Mhm. ndax man sax ay mouvement yi ñaare du ma ci faral du ma ci faral di bëgg jël ay poste de responsabilité. ok waaw waaye nag ak bis bu ñu ma confier dara ne yow lañ ko dénk boobaa dinaa ko gérer ni mu waree. am na ñu jàpp ne jamono yi da ngeen a xew nit ñi dañ leen a jox bopp dañ leen di déglu. ci plateau yi aussi am ngeen fa audience ñu bëri jàpp ne Cheikh Yérim Seck si la bëgg a profité pour use leen utiliser leen. waaw parce que ah, ah, dégg naa benn benn benn dof di ko wax Sa dinaa ko tontu après. Hmm. Sa lu mu wax waaw màggatum fenkat di ko wax naan booy yi dañoo ko respecté kii li mu kii li mu wax ci man dinaa ko respecté. ki tontoogu ko de màggatum fenkat la laa la wax te tontoogu ko lii lancement la rek dinaa ci ñëw dégg naa la mu wax bu baax. moom bu dee wuti wecce tak wuti ku marali taat moom moo koy def te dinaa ñëw ci moom. Mhm. waaw man moom lu waaye di wax ci man nag ma tàggu de parce que wax naa leen ko man man lii nit ñi jomb jombuma dara ku am sañ-sañu daal toog affiché sama photo wax ci man na nga am dé matut nag am xolub ubbi déggul. Mhm. ndax ku déglu dégg. pourquoi bëggoo koo tontu léegi lan mooy. parce que heure bi taluma ko man su ma lay tontu dama koy waaj. su ma lay tontu dama koy waaj ba jekk. est-ce que loolu da amul loo ko wax rek peut-être. non non dama ko talagut. non da amul loo ko wax. parce que tontu dafa war a nekk lu spontané. xam naa da ngaa bëgg man ko nii. non loolu nga saago ko parce ah, que ah kon xam nga yow ma doo ko respecté yow yaa ngi mooy mooy nga bañ a saaga parce que man may wax ci moom mënu ma ko respecté benn benn benn benn modèle boo adopté te yow ngeer wax dëgg yàlla ak lu mu la bañ bañ xam ne ne yow ci plateau say kàddu daan nga ko modéré yow bi waa ji bi muy taxaw Dakar naan damaa diw ba niin bu ku ma jàpp damay rasu man diw ba niin boobu sax si yow laa gënoon a gis parce que daan nga teg kàddu yoo xamante ne peut-être nit du am lu mu la si jamee mais léegi ngeer damaa réew kon a wax non ah. waxuma da nga réew mais dama gis kàddu yu ngeer léegi bokkut ak kàddu yi ngeer ya ma xamoon léegi loolu sama kàddu yi loo ci jàngate loo ci xam mais comme yi ngay wax nii rek di tifaare ci kaw palaato yi di di di di def kàddu yoo xamante ne dafa dépassé kon sérieux ni damaa tifaare yow tamit Mohamed waxal ma lu man tax faariwu ma man dama lay wax dëgg gi cest à saa njógu bu dee fenkat dama naan la fenkat la te et puis fenkat la li mu wax ay fen la loolu kay du saaga saagawuma yaayam saagawuma baayam te ku mérito ma saaga yaayam la ndax daf maa tooñ mais saagawuma ndeyam saagawuma baayam nee naa la fenkat la màggatum fenkat la jalgati xibaar la doon def jalgati xibaar doxatul daw na dugg passif ndax Pastef moom booy fen ñu fay la. yow da nga koo xamee carte membre Pastef. na ma ci nag pareegul kii ultimatum laa ko jëlal bi damay. loo ko waxal rek peut-être moom lim la jam noonu dëgg la yow amoo tontu boo ci mën a apporter. man xam naa ne day fen wax léegi yow après jël sa caméra nga dem laaj ko li nga waxal ñi foo ko teg. te bu defee face ak man wax ko lu raw loolu laa koy wax du ma yem ci day fen rek daal temps wax ju ñaaw daal moom léegi yow. amatoo ci limite quoi yow waaw parce que jëf ju ñaaw moo tax ju ñaaw day am am mais est-ce que en bi ngeen di woote surtout seen mouvement yow nga dem bokk ci gis bopp. waaw ah. war a taxawee. ah seen da nga war a indi lu leer teg ko ci kaw taab yi. léegi man wax ko ci yar ak teggin. bañ a dépassé léegi wax lan moo ci yaradiku. ñun de baaxoowuñ Sénégal di wax mag la nga wax sànq. day fen. baaxoowuñ di ko wax mag bu fenee nag mag bu demee fenal xale bu ndaw xale bu dund ko da ngay fen ah léegi loolu loolu baaxoo waa léegi dinaa la laaj ñaari baat diw day fen bankal sa baaraam ak fenal diw ban moo gën a aay. ban moo gën a aay. maanaam tey man ma fenal la nga ne ma da fen ak man mi la fenal ban moo ciy bàkkaar. wax bi du foofu de mooy fii baaxoo wuñ xale. di tiim li may laaj laa bëgg nga wax ma ko de. man xaw bu ci gën a aay. xamoo yaa naa féq. wallaahi.